الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يهي ويميت على كل شيء قدير غرابو ني سانت يالا جولي سي جامو سامت با جولي سي كيغا خامل موي اصبر خلقك كي داقا مو نيب موي سانغ صلى الله عليه وسلم دي نيو نيغا خامل ñu ngi seetaan Farokh TV internet Farokh TV di leen ziar ci koor gi di leen ndokkeel di saafante ñëpp bëgg di ko yéen ci nga xam ne ngëneel yi nga xam ne nekk na ci koor ñu bëgg ci waxtaanee parce que ci tuuti rek incha allahu di saafante ñëpp alhamdulilah mbokk yi ku ñuy wax jaabir annabi alayhi salaatu wasalaam jaabir jële na si yéen yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne isa kaana aqiru laylatu min ramadan boo demee ba nga xam ne ramadaan dem na ba ca mujj ga léegi ñu ci fukki yu mujj yi jaabir dafa nettali ne mu ne yonent yàlla muhammad dafa wax ne fukki yu mujj ya buñ ca tolloo bakkat samawaati wal ardi wal malaaikati suuf dana jooy asamaan di jooy wal malaaikati malaayika yi di jooy seen jooy métti ba ñu naan ah lan la moo tax suuf di jooy asamaan di jooy malaaki di jooy ñu ne ah musiba dal na li ummati muhammad alayhi lan moo tax musiba dal leen ku xoor ba ci fan yi mujj bi asamaan di la jooyal suuf di la jooyal malaaki di la jooyal ñu ne musiba dal na xeetu yonent yàlla muhammad xiila yaa rasulillahi ay musibatu ban musiba moo dal sa xeet ba asamaan di jooy suuf di jooy malaaka di jooy sallallahu alayhi wa sallam ne saaba ramadaan dem ak weeru koor ci sama xeet musiba la ndax fa inna daawaati naka ñaan yi fii nekk na mustajaabatu li nga koy nangu koor loo ci wax rek yàlla nangu ko kon dem ak weeru koor musiba la sama xeet yi ndax comme bu koor jotee boo ne allahuma rek yàlla nangu na dégg nga sarax yi ngay def ci koor di ci jaamu yàlla subhaanahu wa taala maxbulatan dañ koy nangu wala xasanaat xasanaat yi ngay def ci koor yu rafet yi mu daafatu dañ koy ful kon moo tax yonent sallallahu alayhi ne dem ak koor musiba la ci sama xeet gisuma lu gën a màgg loolu dégg nga moo tax sang bi sallallahu alayhi wa sallam ne xaqu fa no bi bukkaay ñun daal dëgg-dëgg ñoo gën a yelloo sax jooy ñun xeet yonent yàlla Muhammad ci demu weeru koor waaye ñun asamaan yi ñuy jooyal suuf ak ñuy jooyal malaaka yi ñuy jooyal ngir koor gi li muy dem léegi nag nit ñi ñu naan koor gi woor wucc am ñu naan ñu ngi puus mu ngi dem waaye dem gi musiba la ci xeetu yonent yàlla Muhammad ndax nit ñi nangoo ñaani ak sarax yi ak lépp loo def yàlla di ko ful bu koor jotul yàlla def loolu koor na yàlla moo ko jël engagement di ko fayal boppam gis nga yowmal xiyaam bu demee ba nga xam ne yàlla pang na ñu nekk ci benn dingare bi li nga xam ne danga ko tooñoon sa mbokk jullit man neen di fay say say xasanaat di ko fay ba mu des koor bu fa tolloo ci koor yàlla def naa koor moom kenn du jël di ko fay keneen xaq yi ngay def sa diggante sa mbokk jullit ndax lu tax yàlla dafa wax ne koor man maa koy fay sama bopp moo tax boo demee ba nga xam ne ñu ngi jël say say xasanaat di ko fay ba mu toll ca koor ga yàlla def naa xenu naa ko moo tax koor am solo dégg nga bu ko defee ñeenti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu ngi nettali ba tey ne am na benn malaaka woo xam ne inna allaha taala xalaqa bind na benn malaaka woo xam ne loo ñeel na ko arbaatu ñeenti celma yi moom ñeenti xar-xaram la amee malaaka wu doy waar la ñeenti celma yi la amee benn ba nag mu ngi ko rotal ci lan ci sujjuut foo ko fekk mu ngi sujjoot benn xar-xaram bi ñu ne wa xarxaram bi bo ci ko jëm ci benen ba da nga dox jooni at distan ben xarxaram bi ak benen morom ki ñu ne xarxaram ba mo ngi sujud nan subhanaka ma ahsama jamalaka lo lay wax ci sujud ba di bakka subhanahu wa taala yalla mi nga xam mo sel sell beneen ba nak mu ngi jakarlok di jë ilal jahannama di xol safara nan woyilun bugal ñeex na li ñi tabbi fi ci safara mom lu lay wax beneen xar bi nag mu ngi jë ilal jinaani xajana la jë di ko xool rek naan tuuba liman daqalaha texe ñeel ñi tàbbi fii te mooy ajana kër gi nga xam ne boo fa tàbbee doo doo génn dégg nga am na benn xar bi moom mu ngi jëfan ilal xaras mu ngi jàkkarloog xaras di xool xaras naan irham yërëmal bul mbëggal saa yi mi way xoor yi xeetu yunte yàlla Muhammad jéggal leen lépp lu ndef ba ko sallallahu alayhi mu ngi nettali ne bu koor tàbbee rek yaamuru dana diggal kiraamal bii ne leen hee bind leen ci xeetu yunte yàlla Muhammad seeni xasanaat te wala yaktubu bu leen bind mukk seeni sayyihaat li ñaaw lu ñuy def bu ko bindi lu rafet rek bindal moo tax yunte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne walaw tuxallimu bu xamoon ummati sama xeet maa ramadaan ramadan li nekk ci weeru koor kon dañuy mbébét xat mi yépp nekk ramadan waaye léegi nit ñi xamul loolu koor dafa metti nangam nangam waaye sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu ñu xamoon li nekk ci ramadaan dañuy mbébét xat mi yépp di ñu koy xoor koor nag mën naa xormal ndax yàlla moo ko xormal jox ko xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi dafa am benn majus ànd ak doomam ñëw ci marché bi doom ji nag xam naa ci lay sant faraaw mu gis ibnuhu doom ji muy lekk ci bëccëgu weeru koor ci biir marché bi ma majuus bi dal di ko dóor ñi ne si marché bi ne lu tax nga dóor ko mu ne dafa war a xormal lislaam xormal koor moo tax mu koy dóor te ma jus la falamaa maata ba mu dee nag mu ne na laata muy dee sax dégg na ay malaaka yaa ngi naan hé eh, kii baleen ko fu mu jëm yóbbu leen ko xajana ndax moo xormaloon koor benn xaalim tëdd guddi gis ko fi naw mi ci nelawam gis majus bi ci biir xajana mu ngi béel mu ne ko sabab bi lan la ndax nekkul ne yow yaa nekkoon ca marsaba di dóor sa doom ci bëccëgu weeru koor pour xormal weeru koor xormal lislaam mu ne ko man la sabab boobu moo ko yóbbu xajana waaye li da ngay romb ci mbedd mi gis nit ñi fu waaye toll mu ngi lekk di naan xormalul weeru koor te koor mën naa xormal mujjus bi nga xam ne gëmul yàlla gëmul rasulillahi xormal bëccëgu weeru koor doomam di ci lekk mu dóor ko loolu moo ko yóbbu àjjana kon mbokk ñu bàyyi xel ci koor am na solo yan yàlla defal ñu jàmm ñu war ko ba mu yegg ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah